alors on continue donc euh, Aliou Sall ñu ngi xaar euh, sa réaction alors Babacar euh, Thioye Ba Macky Sall wax na ko dernièrement lors d'un entretien au, journal Express mu ne la question de la légalité ne se pose pas c'est une question morale qui va être tranchée le moment venu est-ce que bokkoon nga ci ñi njortoon ne dina am njeexital bi tey man moom damay kàddu yi nga xam ne moom la président Macky Sall yëkkati ci guddi gi tey euh, dama koy analyser ci ñetti fànn bu njëkk bi comme ni nga ko waxee mooy problème mu candidature Macky Sall dafa nekkoon un problème moral euh, mu nekk loo xam ne ñu bëri fañ ko doon xaaree mooy mu sàmm kàddoom te bu may wax sàmm kàddu du mu wax du woon waxul woon ne du nekk candidat parce que wax na ko ceex moom moo bind wax na ko d'ailleurs ci discours am bi wax na ko bind na ko répété na ko ne mandat bii mu nekk ni mooy mandat am bu mujj donc tey li ma jàpp mooy dafa sàmm kàddoom mu doon nag loo xam ne man am naa ci mbette parce que du loo xam ne tàmmoon nañ ko ak Macky Sall kuy wax ba pare di sàmm kàddoom parce que boo leen fàttali ko 2016 ba mu waree wàññi mandaam te wax ko fu ne ci àdduna ba mu jotee daf ne moom fas yéene woon na ko waaye conseil constitutionnel moo ne ko mun ko def man rappel décision décision politique kon na ko mun ko def moom mun na ko def na démissionné que pour dire premier niveau d'analyse bi mooy mbé mbetteel bi ma am ci kàddu yi nga xam ne tey président Macky Sall sàmm na ko beneen bi te loolu moo xaw a ñuul ci wax ji nee na amoon na sax sañ-sañu nekkan daan ndax constitution may na ko loolu foog naa mënoon na ñàkk ci wax ji comme daf doon renoncer rek mënoon na maasaale ko ci kàddu gi nga xam ne moom lay sàmm bañ a indi situation boo xam ne ëllëg mun nañu jural lu mel nii parce que keneen mun na def ni moom ëllëg parce que problème mu mandat bi au plan constitutionnel moom ci boppam ci ay kàddoom ak ay ay ndawam 2016 ñoom ñoo ñu ne woon verrouillé nañ ko verrouillé nag mooy loo xam ne dañ ko ne ràpp lu ñu ne ràpp nag kenn waratu koo dikki donc au plan juridique man je persiste à le dire même si ça n'a pas d'intérêt immédiat que mënul woon nekk candidat même su dee moom wax na ko ci biir intervention ne yoon mayoon na ko ñetteel bi mooy te loolu moo am solo ci li président wax tey yëpp mooy man dama jàpp ne lucidité ak responsabilité moo prévaloir tey di à dire que Macky Sall toog na tey après d'avoir exercé le pouvoir pendant onze ans jàpp ne jàmm moo gën fitna jàmm moo gën ay parce que xam na ne ñetteelu candidature am bii su ko indi woon fitna coow xuloo tension bi nga xam ne moom lañu nekkoon di ko rumambaat ci at yi ñu weesu te lañ jëm te mun naa gën a métti sax li jot a donc ma jàpp ne li ëpp solo ci waxu Macky Sall tey mooy mu jàpp ne réew mi moo féete ci kaw man loolu laa jàpp leneen di ci kàddoom am na ci yu am solo nag yu mu wax yoo xam ne pour man ñun moom lañu war a jàpp tey mooy jàmm réew mi ak ëllëgu réew mi ak naka la ñuy àndee pour defar suñu réew parce que au delà de wuute yi ñu wutee yépp ci politique ci xalaat ci jëfin am na loo xam ne moo ñu féetee kaw ñun ñëpp Balla wax na ko léegi ñun ñëpp Sénégal moo ñu jur ñun ñëpp Sénégal moo ñu mag donc dañu war a jël Sénégal nangu ne moo nekk suñu kaw comme moo nekk suñu kaw nag ñu jéem a seet ci li nga xam ne mun nañ cee ànd juboo ci jëfee ko pour njëriñu réew mi pour njëriñu suñuy doom pour suñuy njëriñ ñu jëfee ko leneen li foofu laay daanelee mooy président Macky Sall am na loo xam ne daf ci romb rek te lu am importante ci jàmm jooju may wax <coughs> mooy moom du candidat te ci ay élection la ñu jëm yan anam yan jumtukaay ban taxawaay la nar a am moom ak nguur bi nga xam ne moo fi nekk pour que élection yooyu ñu mën koo def mu doon élection yoo xam ne ku ci bëgg bokk di nga ci bokk te bu élection yi dooree processus bi yëpp laa waxuma nag jouru vote bi mais processus électoral dina nekk processus boo xam ne day transparent maanaam day leer day sincère maanaam lu fay jub dafay génn day doon la Sénégalais yi bëgg ñun loolu la ñu bëgg Macky Sall tontu parce que li mu wax discours am am na solo ci li mu wax mais am na solo aussi ci lu mu waxul moo tax fi may daaneel rek mooy wax na ñu ngi koy xaar maintenant ci jëf ji pour fexe ba réew mi nekk ci trajectoire jàmm parce que ci biir jàmm boobu la ñu mën tabax